jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su mbokk yi ñu ngi fii ci Bargny stade Bargny ki ñu fi woo di Baol production ci njiital ba di Assane Ndiaye moo ñu fi woo boole fi ay ndaanaan bëre dóor lutte avec frappe lamb am na fële ci arène nationale waaye lamb am na fii ci Bargny sëñ Basiru borom mbég mel taar bi kaay ñu xool sëñ Assane lim ñu fi indil ci ambiance ak bàkku lépp loo xamante ne cosaanu làmb promoteur baa ngi noonu parce que am Assane balaa muy dem Assane ngoog kilifa gi siyaar naa la. maa ngi lay siyaar bu baax. naka yi tey. sant baax baax. tey nga tëgg journée boo xamante ne macha allah journée bu neex ban yëg-yëg nga am. xam nga làmb rek boo si bokkee chaque wa chaque ngay war a wane sa bop mois de mars bi dama ko tegle le premier le quatorze le vingt un combat bu ñëw di nga gëm bi si toog moo daax bii di ñëw Bébé Diène Fourrière la suñ ci jógee fils de Balla général Malick. mais tey nga tëgg journée bi boole ci ñu war a def jàkkaarloo ñi nga xamante ne dañ leen a namm ku ci mel ni euh, Fourrière ak ak ak ak ak yeneen naataangoo ku ci mel ni mbay Guy gi ak Mame Balla ak ñeneen ak ñeneen. waaw ñu ngi leen di xaar pour ñëw bégal Sénégal waaj événement yi. def ko comme niñ daan def rek lépp luñ dëgg rek événement lañ ko bëgg a def incha allah waaw. Assane maa leen di bëgg nag te dinañ liggéey incha allah man ak yéen. jaajëf. kàddu gi rafet na kontaan nañ bu baax a baax a baax koo ci wax rek Serigne bas mu am yëg-yëg bu mu am ci wasaare lamb ba ni la dinañ liggéey incha allah ubbil nañ suñu buntu képp kuy promoteur bëgg nañoo liggéey ak yéen képp ku ñu woo ci kaa ñu liggéey ngala dinañ la wuy si ñu liggéey liggéey liggéey bu rafet bu mucc ayib Serigne Bass kaay mbokk yi comme. bi mooy cinquième combat de la soirée. kooku mooy Lion bu Jolof mbokk yi. booy maanaa ngi noonu. Lion bu Jolof a ngi noonu booy maanaa moo ngem boo bu lu vert li. am lu jaune li takk ci bopp bi kookoy Boy Maana ah. d'accord ndaysaan Boy Maana lion bu Jolof Boy Maana Ikri Rëbës la nekk Lion bu Jolof kaay baax la nekk arbitre bi sifflé na Boy Maana Lion bu Jolof mbokk yi ñu ngi jàkkaarloo ñoom ñaar Boy Maana moo takk Lion bu Jolof moo leen wan ginnaaw dóor na ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay xeex ña ngay dóorante dóor na koy percute oh boobu dal na jël na ko lu ma koy takk ci kanam la ko jëme wala ci ginnaaw lion di nga dem xaw ma foo jëm waaye di dem ci kanam wala ci ginnaaw oh lion daan na waaw waaw lion daan na ko lion ko booy maanaa ndaysaan ambiance nee sama ginnaaw du laal suuf dama am ngemb fëgg na ngemb hey lion bu jolof lion daanaan la beneen xale ngi noonu lion bu jolof lay wuyoo xool ci combat bi ni nga bëreeg booy jolof booy na booy maanaam waaw booy maanaam dama kaa waxoon day waxoon day xaar rek chantre ba gëma ko woon quoi mais doo moromam billaa walaay talaay kuru ma sama xaman ku moom su ma ko teeree daan billaahi fi mu sori ba man yaakaaroon naa laaj dara gën a rëy sax jël bi daa naa gën a ñaaw sax mais yàlla moo ko may sens billaahi bi mooy deux combat deux victoire deux combat waaw deux victoire ah. waaw fan nga jëm waaw gars yi làmb gi rek sama morom ñu ngi fi dama leen jox ma bëri ñoom sama morom yëpp ñu ngi fi bëri fi bëgg nga bëri waat tey tey tey woon ma bëri ko billaahi jaajëf ah, waaw waaw Badou Fall lay waaj a sotti si tous ka ko féete càmmuñ moog Baye Mandione a bokk ndey ak baay kookoy Baye Mandione siñoor waa sotte ko ni dem waaw waaj a tuus Libidor a ngi noonu hey Libidor yor na benn bant xànc maa lay siyaar Libidor. yaa naa lu bari baa ji sant alhamdulilah. waaw sant bu baax a baax. tey loo yëg. waaw tey kontaan rek ñëw ak samay mbokk xam nga fas yéene def lu rëy rek si kanam tuuti incha allah. ñu xaar tuuti. tuuti taal tuuti ma def. dégg nga est-ce que dégg nga. bañ a dégg. maa la gëm kaay. dañ bas. ndeysaan. Libidor a ngi noonu. waaw waaw. xeex maa géwél bi <laughs> waaw waaw cey am na lu muy xool xool na ci ba deru gaynde de ku wet di laajal ko doon jàpp gaynde ga barke ànd sama xarit boobu yaa boobu fit ndeysaan waaw ndeysaan ma ngay duus ma ngay joxañ xibla yi jugee na ci benn dem ci beneen sibi moom mooy sibi xotaan ndaysaan ndaysaan sëtu faal ak doomu sibi sëtu doomu sibi doomu sibi moo leen féetee càmmoñ sëtu faal moo leen féetee ndijoor moo xees cokkaas na ña xeex wala làmb ja dina gaaw sëtu faal ma nga dox ci kaw doomu sibi doomu Sébé koy déglu ñoom ñaari xale yi ñu ngi ci kuy njëkk a xeex kuy njëkk a cokkaas ku muy doon doomu Sibi Sëtu Faal Sëtu Faal doomu Sibi cokkaas na cokkaasaat moom daa mel ni day dox di ñëw ma ngay dox de daa mel ni daa bëgg combat bu moom Sëtu Sëtu Faal doomu Sibi cey làmb xale yaa noonu doomu Sibi loxo yi jàppul Sëtu Faal loxo yi jàppul ku nekk ngi déglu sa morom gàllaaj yaa ngay commencé dagg ndànk-ndànk combat bu yàggee rek gàllaaj bi sonal borom daw na jël ko doomu Sibi jël na ko sukk na lu mu nar ma ngay yóotu loxo ba Sëtu Faal doomu si bi jël na ko sëtu faal jaxabal na ko joxe na wet ga moom sëtu faal deuxième pied da waaw waaw waaw waaw hey faal daan na ko jël bu rëy hey sëtu faal daan na doomu si bi hey sëtu faal daan na doomu si waaw waaw arbitre lu wax arbitre bi wax Serigne Bass jël am na wala déet arbitre bi wax licencié lay génne daan na waaw waaw Sëtu Faal daan na doomu sebi arbitre bi sifle na diggante Mbaye Diop ak Doudou Koné Doudou Koné numéro 2 Mbaye Diop moo la féete càmmoñ ngemboo ngemb lu weex li mu zone Doudou Koné moo la féete moo ngemboo ngemb Lagos def rasay dudu gën a dox na ci ko am dóor na mu yéen dudu mi lum nar dóoraat na dóoraat na kaawo déet waay ña xeex mbot mu yéen dudu mi lu mu nar ma dóor ma dóor ma dóor kaawo kaawo attention kaawo duudu ko ne war nañ ko ndombo tay bu dee daan nañ ko duudu wala déet daanu na wala déet daanu na hee duudu daanu nga jël bu la bett ay duudu daanu nga jël bu la bett laa ilaaha illallah cey làmb cey làmb hee duudu daan na ko jël bu rëy cey Mbay Jóob waaw waaw mbay daan na. façon bëre bi façon bëre laa bëre sama kër ndax ya ña nga fa sant sama yaay bu baax a baax war na yàlla bëre simple la mu si moom mu xeex mu mel ni da jël ku ngeen rëpp jóg nga bëtt ko war ko ndomba. jël laa ku nag dama jël ku arrière ñëw soog a jàppaat waaw ah, di gërëm baax lépp la ak ama fayam waaw. muy dox si diggante ki nga xamante ne mooy bébé ama ay bébé bébé ëmma ak ngaala jey laa kii de xamul lu ñor ak lu ñorut leena grand combat préparé leen nga di grand combat préparé waaw waaw <laughs> kii moom moo dàq ci àdduna ngaala jey ak ëmma ëmma seen deux moo fete càmmoñ ngaala jey laa fete ndijoor arbitre bi sifle Eumeu Sène ndaysaan tànk ndi joor la jiital ngaala Dieye la jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar seen xeex du neex waaw waaw du neex ñoom ñaar seen tànk yi dañoo taqaloo bëre rek moo fi xaj waaw waaw bu doon ñaari garde normal la xeex ba day neex bu dee ñaari fausse garde la xeex ba day neex waaye garde normal ak foos garde fu ñu jàkkaarloo xeex bi du neex cokkaas na cokaas na léegi de Ngalla Dieyla cokaas na bu dal Ngalla ngay cokaas ña ngay leewaatoo ba tey nga sa bopp de xeex nañ fayu na ña ngay dóor fetal ya tàkk na dóor na hee jàpp na ci ngemb Ngalla Dieyla Eumeu Sène Ngalla sëq na ngemb Eumeu Sène takk na tegal na ko siège Ngalla daan na ko waaw waaw Ngalla Diayla daan na Eumeu Sène 2 Ngalla Diayla daan na ko Ngalla Diayla daan na ko waaw waaw Ngalla Diayla daan na ko daa teg ans Ngalla Diayla ak Eumeu kan moo ci teg ans ku jiitu Ngalla Diayla Eumeu Sène Ngalla Diayla Eumeu Sène ngi consulté wu dagg war mbaam lu waay doon jaay bu ladd ay sëñ Basiru kenn du moom borom wasaare bu ma ko yaay borom wasaare mu ne ma déedéet wasaare wasaare àdduna la képp xamante ne da ngay dund làmb ci biir wasaare nga bokk arbitre bi sifflé waat Jayla ndeysaan ak Eumeu Sène 2 Ngalla Jayla ak Eumeu Sène 2 Eumeu Sène moo leen féete càmmoñ cokkaas na fayu na door daanu door na daanu oh fair play na ndeysaan oh door na kuubu dal yaabil ko prétendant bi ndeysaan oh Ngalla def na lu rafet waay Ngalla def na lu rafet waay. doo Ngalla jëy la koo xamante ni ay dëkk dañ laa yeb da ngay def loo xamante ni dafa defu man dañ ma yeb da ngay def maa yeb waa ñëpp yeb ma waa ban ñu yeb ma. il faut que ma joxe li mu moom yëpp tey combat bi sama combat la. ngay bëre Eumeu Sène ngeen njëkk a jàppante nga xattar bi ko ngeen yegg suuf. loolu jële bu leer nañ la yàlla ma yàlla baal si yàlla ma Modou Lo baal si wax ji bu ma sëkk ak moom bu ñu foofu ma daan ko si loolu noonu. lu leer la mbër boo xamante ni dafa ne ko mbër nekk leneen kenn du ko ay mbër kooku mbërëntaan lañ koy oowee wax naa ko ko waaw noonu la demee. dóor mu daanu mu préparé ko. non man man mbëru mbabat laa mais damaa box sant Maodo Malick Dieng bu baax dafa jóge seen village bàyyi seen liggéey. dafa ma bokkal dafa dafa ma box sant sama xarit boo xam ne ek alalam li ma jox mooy Ablaye Dieng. damaa gis nga dóor ko mu daanu nga dem ndeysaan di ko yëkkati la. non man xaw ma ko man sama xol dafa set xaw xaw ma lu ñaaw bu ma soñoon lu ma tuur benn deret ndax kenn yaroo ma ko si daara laa yaroo xaw ma loolu. di sant sama waa village waa ñi bu baax a baax waa Tëngéej mbalka bu mu amee combat doo am jàmm ñu ne si kaw tribune bi maam tam am na combat yàlla na ko yàlla may ndam di sant sant si Yves Lamine ña si Yves Lamine maa ngi koy bu baax a waa jaajëf waaw jaajëf grand. yaa ngi Siteu bu Diourbel. waaw maa ngi Siteu bu dama la daan dégg rek doo ko dajeeg yow tey lan moo la jëlee Diourbel nga ñëw Dakar. waaw tey dama fay am signature di profité di siyaar waa Diourbel ñëpp euh, dama fay amoon tey signature man ak Samba Laobé école de lutte Balla Gaye. on war a bëri le 21 incha allah. dëgg laa moo ko tëgg. yaakaar ngeen di bëre. ah yaa daje. Samba Laobé école de lutte Balla Gaye. Samba bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama cinquième combat. waaw waaw. ñaata victoire. Euh, am naa quatre trois victoire benn défaite. benn défaite waaw waaw. dégg naa la avant ma lay gis. waaw nii waaw di woo di profité di woo waa Sandakour fi ma bàyyi ko di woo sama cosaan fi ma dëkk Ngangu Ney di woo ñëpp pour ñu jàpp ci combat bi le 21 incha allah. jaajëf. jaajëf waay. sa diggante ak sama grand la sama lépp la sama grand frère la kii ba may tuut tànk ba léegi ba may tuut tànk ba léegi moo ma yor bu ma gisee fii ci làmb moom la tay ah dégg dégg naa kuy liggéey ci média warul am mbër waaye parce que dégg naa yaay mbërëm. moom su ma gisee fii ci làmb tey moom moom ci la bokk. waaw moo tax kii sunu lépp la sama maag rakam ñooy ànd guddeeg bëccëg muy min la bambis lamin maag rakam ñooy ànd guddeeg bëccëg kon kii sama gànnaar la nan ak Tafa Gueye. Tafa Gueye la ndeysaan. arbitre bi nga ñoom ñaari mbëri. dox ci diggante Armé Lour ak Tafa Gueye 2 wala Tafa Gueye rek arme Lour moo féetee càmmuñ Tafa Gueye moo féetee la nga xamante ni moo la woon ginnaaw cey lamb armé bi sifflé na Armé Lour ak Tafa Tafa Gueye Armé Lour Armé Lour coow dóor Tafa reculé na Armé Lour daa nar a xeex armée lour de moom lour loola door na Tafa Gueye door na Tafa Gueye moo ngem boo ngemb lu ñuul moo ngem ña nga ca ba tey armée Moustapha Gueye combat bi yàgg na temps ba jeex na wala déet armée lour Tafa Gueye Tafa Gueye door ma xeex fayu kaawo door na daanu dóor na ko mu daanu. <laughs> naa ma naa tey sama combat bu ko yàkkam bi passé waaye man yàlla na ma naa ko dóor mu daanu man yàlla na ma. da nga tëgg lapataak. ah da nga tëgg lapataak. déedéet tàggoo lapataak gi gisoo séminaire koy jàng ak kosu bi kosu bi ma koy looloo tax moo xam ne mu naa ko dóor mu daanu. waaw waaw waaw waaw xam nga sax entraînement yi entraînement moo tax ko sub dañuy rey si ñu yëngu ay ponkal boole ko nangu ma yàq si ngeen moom bu du liggéey looloo tax. yow xam nga li ma la rek suñu jàll suñu jàll ak këwel ñoom mun naa ak ñagas bi mooy treizième combat trois défaites la trois défaites la am waaw maa victoire. merci waay Ibou Ndiaye ëpp li maa ko duma. waaw kii non Zambala amul combat. waaw. mën nañu ko Zambala waaw ñoom mun waaw ñun ñëpp mën naa leen bëri waaw boobu. parrain baa ngi noonu di dugg si. ndeysaan xoolal jaraaf bi ak saltige yi saltige tëngéej yeeg barñi lii daa rafet ci làmb ndeysaan xolama ña ca ginnaaw Libidor ziar naa la. waaw ah, delloo ziar gaa lépp ci loolu ne. yaa ngi am jàmm. waaw sant yàlla bu wér. indi sa doon sa poulain ban yëg-yëg waaw waaw waaw émotion bi yegg na moom émotion bi moom monté na quoi mais dara champion la dama koy ñaanal rek yàlla may ko ndam quoi bu seddu guy nag. te wóolu naa ko ah. xam ki muy bëre naa ko bu baax non kii lamb lamb boolewu leen xanaa xama a affaire lamb moom dafa doy waar mais. <laughs> waaw si kanam daa incha allah mais booy bi du ma romam quoi. yaa ngi waajal koy waajal. maa ngi waajal ngeer bu zap. ngeer bu war ko tegal lu diis lu métti. weex waay yow. non man kooku mooy loolu. simple yi rek doon gis bëre dóor xaw ma lu tax nga daw. non bëre dóor yi pourtant maa maa treize combats deux défaites la am. yëpp victoire. tax. nga mujjee ko fee bàyyi dem ci bëre simple. non parce que gars yi la ñemewuñu dañu ragal dañuy toog jël avance toog seen ruux ba mu nekk mu ñëw delloo ko naan ay bàyyi na sa sama kii moo ma ne ma delloo ko loolu moo war joge si làmb. ngeer loo ko yéen. ngeer ngoor lu diis laa koy yéen. barki suñ bamba bu moytuwul fii lay jëlee dem retraite lu metti laa koy teg gis naa ko nag mu ngi topp di wax rek nekk si oto ma naa kilim bi moo sedd mu toog di envoyé ay audio di ay whatsapp ay sinap di wax mais maa ngi koy xaar. métti laa lii boo ko gisee ak décor yi nga xam ne làmb lépp cosaan la xoolal mbër yi xoolal jaraaf yi xoolal ndey ji réew yi cey làmb ñëpp koy aada la ak cosaan ndeysaan waaw. rafet na. yàlla na seen jàmm yàgg yéen a ngi bëre drapeau président ma Sy Mamadou Sy mi nga xam ne doomi Tëngéej la te lu ma am delloo ne ko si Tëngéej nit nag kenn du ko lekk wala nga koy naan nit ay moyen dong lañ koy doyee te moyen yi ma am delloowaat na ko Tëngéej kon président Mamadou Sy drapeau bii ñu la tuddee yàlla na la jik si darajaay Seydina Mouhamed ndeysaan yéen ñaari mbër yi yéen a ngi bëre drapeau président Mamadou Sy. ànd ak saltige yi ak jaraaf yi. ànd ak saltige yi ak jaraaf yi. mu mel ni El Hadj Maodo Ngom. waaw El Hadj Maodo Ngom a ngi nii Salama yaay Déthié Sarr. Salama yaay Awa Sarr. Salama yaay Numbe Sarr. ndeysaan ni ngeen gunge gunge tey président Mamadou Sy. département Tëngéej yëpp kontaan nañ si. Mamadou Sy ñaari champion yi ñoo ngi bëre sa drapeau waaye ku si ku ku si jël ndam li. président Mamadou Sy la dajalewaat décoré la. waaw dama ne drapeau bi ñuy bëre nii yàlla si yàlla def jàmm. Mamadou dañ kaa tuddee bés waaye dafa jël bés jox ay kilifam ku mel ni kan ku mel ni Alaaji Maodo Ngom ànd ak saltige yi ku mel ni Alaaji Ndooy dama ne Maodo Ngom jërëjëf dama ne lii lépp yow Mamadou Sylla dafa topp sa ginnaaw rek xam ni yaay kilifam kon lii bu ko defee dafa def lu ko war ñun ñëpp Tëngéej leen dëkk kon dama ne yàlla jàmm yàgg Mamadou si baax nga gore nga ànd ak seen jigéen muy ca Diagne kon dama ne yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm yàgg Maodo Ngom nag cey bi day màccee sa maam maam Bapoon Gueye dama ne yow ku la wóolu ku ne am ndam Maodo Ngom bu la kenn xeeb Tëngéej la samp nga ànd ak tëngeej kumba làmba di suñu maam cey bi day maat moo tax gaa ñi di ko yër di daw cey bi day maat mooy suñu maam du ñu daw dara jërë ngeen jëf kookoy Badou Fall numéro 2 mu ngi waree Thiaroye sur Mer Libidor numéro 2 mu ngi waree Sénégambie doon doon doomu Ngunjaan kon Libidor a ngi noonu ayca grand combat amba en arrière lii grand combat bi dox ci diggante Badou Fall numéro 2 ak Libidor numéro 2 ñaari numéro 2 yi kan moo fere numéro 2 Libidor Sénégal bi la nekk Badou Fall écurie Thiaroye la nekk écurie Thiaroye ba mu ne fa la Baye Mandione nekk fa la Baye Mandione ne fa la Thiaroye gépp def benn bopp mbëru Thiaroye yëpp booloo nañ doon benn def ko benn écurie ndeysaan Badou Fall a ngi noonu hey kokoy Badou Fall Libidor xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci lam champion la mën na bëre mën na xeex Libidor te lambam da ciy concentré wu di ree rek comme numéro 2 ba numéro 1 ba tamit noonu la mel muy Libidor bu Ngunjaan ndeysaan moom la duppee boppam cey lamb arbitre bi sifflé na mbokk yi arbitre bi sifflé na dimanche premier mars fii ci stade bi nga xamante ni mooy stade stade Bargny jërëjëf sëñ Bass ndeysaan stade Bargny xale yaa ngi noonu ñoom ñaar def nañ ku ci nekk may na sa morom distance waaye yàgg-yàgg dinañ laale Badou Fall tànk ndijoor la jiital Libidor tànk càmmuñ la jiital lamb ji na pour ñu xeex du yomb ndax fausse garde la ak garde normal Badou Fall fausse garde la Libidor garde normal la ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo Libidor moo xaw a sut tuut waaye Badi Fall tamit njàmbaar la ci làmb boo ko xoolee takkaay bari na moom Badu Libidor a ngi dox ndànk arrière na ci diggi géew bi nee ko kaay fii lépp fii la war a leeree ci diggi géew bi Badu Fall Libidor ñu ngay lewaatoo grand combat baa ngi noonu sëñ Basiru borom mbég meeg taar mi moo baax moo gore ndaysaan démb sama doom ji laa àndal Ousin Diop ñu ne arène nationale ma nga fa nii di liggéey liggéey bu mucc ayib moom ak Adama la grand caméraman nga xamante ne lum cadréwul baaxul looloy wasaare làmb ndaysaan nañ leen booloo doon benn say takk ko ci buum jox ko ko njukkalee ko ko ndax sénégalais yi bëgg gi ñu bëgg wasaare làmb ndaysaan dooley jën ndox doolay waykat public doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi mënuñu leen a fay ñu ngi leen di jaajëfal di leen bàyyi suñu borom mi nga xamante ne moo am fay yàlla na suñu borom fay. bi nga xam ne dañ koy dégg muy coronavirus yàlla nañu tegg dëkk ya mu nekk yàlla na fa yàlla def jàmm mu sol leen ci feebar bi ba ñëpp ànd ak tawféex féex gi doomu réew ya fa ne ne Italie. ne Sénégal ne fépp ci doomu àdduna bi yàlla na leen ci yàlla muccal muccal ci mbooloo mi jullit ña ngay cokkaas na cokkaas na numéro 2 cokkaas na Badou Fall 2 ma ngi koy déglu cey làmb ña ngay ba tey Libidor Badou Fall Badou Fall jàpp na ci loxo bi sànni na benn waaye dalul ndeysaan Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall ci tànk yi la jëm Libidor dóoraat waaye dalul Libidor numéro 2 sànni na léegi waaye Badou Fall da koo moytu Badou Fall numéro 2 ak Libidor numéro 2 sànni na waaye dalul cokkaasaat na sànni na beneen léegi sànni na beneen léegi waaye benn coup dalul cokkaasaat na ña xeex ña ngay xeex Libidor a dox ci koom Libidor a ngay dox ci koom Libidor Badou Fall Libidor cokkaasaat na mu ngi dox ci kawam ndànk moom Libidor Badou Fall na muy concentré wu di ko déglu Badou Fall fayu na Badou Fall fayu na Badou Fall fayu na Libidor ak koy dóor dóoraat na beneen Libidor ni muy doore baaxul ndox kuy dalul dóor na ñett ku wala ñeent yoo xam ne benn ci ngelaw gi la ko sànni dóoraat na Libidor na sànni na Libidor jaaw na jàpp ko jàppante na ak Badou Fall jàppante sëq na ngejo Libidor jàppul Badou Fall bañ na Badou Fall bañ na Libidor a ngay jàpp jàpp bi baaxul Libidor da koo bëgg a mbot wala déet Badou Fall caxabal na ko mu bañ Libidor a ngay daj mu ngi door ci suuf mu ngi door ay dóoraat na beneen Badou Fall siggi na def na rotation bàyyi ko Libidor dóoraat na Badou Fall nga yóotu Libidor jàpp na fi mu jàpp baax na rëccaat na ña ngay xeex ma nga dóor ci suuf ma ngay dóor ay rokkas Badou Fall loxo ndijoor bi jàppul waaye Libidor loxo càmmuñ ba jàpp na ña nga ca ba ñoom ñaar Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall jàppante nañ ba tey ñu ngi dégloonte muy Libidor muy Badou Fall Badou Fall fayu na door na léegi benn uppercut bu dal Libidor fayu jege nañ saako yi ñoom ñaar waaye saako yi fekkiwul kenn ñoom ñooy fekk saako yi ma ngay door mbot na ko génn nañ saako yi Badou Fall ak Libidor ña ngay lewaatoo Badou Fall fausse garde la Libidor garde normal la hey ñaari xale yi Badou Fall Libidor ña nga ca ñoom ñaar Assane Ndiaye moo ñu fi woo njiital ga di Baol Production waaw waaw ña lewaatoo ñoom ñaar ndeysaan da ngay leewaatoo ba ay sëñ Bas lay ree balaa di ëbbali ngay ree fii daa sedd ku nekk sa problème Wally Séba jàpp nag am na ku mu jàpp di yóbbu ku nekk sa problème Badou Fall Libidor combat bi ña nga ca ba tey ñoom ñaar Libidor loxo di joor boobu ku yi ci ciy sànni baaxul da ngay jam góos doog a indi droite mu doon une deux Badou koy déglu rek Badou Fall ni muy déplacé Badou Fall Libidor Libidor da koo bëgg a jàpp Badou Fall door na ko dal na kaaw na ko daan na ko Badou Fall daan na Libidor jël bu rëy Badou Fall daan na ko jël bu hee door bi dal hee Badou Fall door na ko hee bi dal na Badou Fall door bi dal taxaw Badou lii lan la jëf Ablaye ah, Ablaye jërëjëf Ablaye jërëjëf Nabi yéen a baax Ablaye jërëjëf barki Rasul la yéen la Nabi man barki Rasul la lépp yéen billahi wallahi Allahu akbar jërëjëf Baye Fall nga yàlla da lay fay soxal yow doo moromu ndeyam Lamine lépp yéen la kontaan nañu baax na Lamine tey alxuraanu karim Badou Badou Badou Badou kontaan nañu billahi lépp yéen Badou am nañ ci moom yaakaar ndax xalaat nañ ne ëllëg fu mbër di war na fa toll caaro yi ku fa judd rek mbër nga yaay am nag ful la ju mën a tax nga nga dëkkal mbër gi kon nag mi ci yoon mi ci yoon defagul dara mais bàyyi leen ko xel mi ngi ci yoon wi di ñëw jërëjëf fils fils félicitation mooy ni ma la waxoon sànq rek waa caaro yi ma yab man tey ni may génne suñu kër ku ko fekke woon tey di nga xam ne tey defet waruma billahi ndax waaj sama booy yi nii xaalis bu bëri lan def ci man man xaalis bu bëri tey laa fi ñëwee mais Assane Ndiaye yàlla na ko yàlla fay xolam Assane Ndiaye li mu bëgg ci liñ làmb yàlla na ko suñu borom defal Assane Ndiaye moo ma a indi fii premier combat sama premier combat indi waat indi waat ma si grand combat mais waa ji waxoon naa la ko ne la moom damaa xeeb mais bala moo wax ne damaa xeeb na laajte ba pare sama maam fa mu tëdd maa koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana bi ñëwal ma koy sant gërëm Ahmed Deme maa koy sant gërëm poosé rek lan bëre Pera la Xarim Njaay ñëpp a ma dimbali jaajëf gaay après mbokk yi jërë ngeen jëf loolu moo xewoon ci stade bu Bargny dox ci diggante Libidor numéro 2 ak Badou Fall kii di Badou Fall daan na Libidor jël bu amul benn werante Libidor da dafa jël coup coup bi mu jël moo ko génnee ci làmb ji Badou Fall daw tak bat euh, dajalay tànkam yenu ba ci kaw dóor ci suuf làmb noonu la mbokk yi ñu leen di jaajëfal di leen tàgg ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba la incha allah ci beneen xew-xew làmb policier yi ñooy sama papa xoolal li mu <laughs>